ngoog Thierno di fàttali ni kon nag euh, commandement bu gendarmerie nationale euh, ñu ngay wëyal xeex bi jëm ci wàllum euh, mbëkk mi compagnerie compagne gendarmerie bu Tëngéej Euh, teg na loxo guddik euh, ñaar fukki fan benn jàpp ñaar fukki fan ñaar ci weeru septembre sa mbéy commune bu euh, Bambilor ñu nga xam na ni dañoo bëggoon bëkki bilang ba ñeent fukk ak ñeent ci ay candidat ñoo nekkoon ci biir juróom yi dañu di ay mineur ñett ñi ay soxna lañu fanweer ak juróom benn di ay sénégalais juróom-ñaari di ay guinéen benn gambien loolee chef bi nga xam ne moo nga la wàllum communication bu DIFCOM ñoom ñoo ko xamle mbëkk mi ñu ngi koy xeex ba tey xale yaa ngi jël gaag bi ba léegi waaw ñu tàmbali rek euh, jaale ñi nga xamante ni ñoo ci njàkk seen i mbokk ñu ay suñu mbokk yoo xam ne ñoo ko bokk pour mu répéter parce que ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ ay doomu Afrique lañ mais dafa am euh, beneen question bu muy posé ndax autorité yi tey léegi en ce moment précis dañoo amatul léegi saafara ci mbir mi. Mhm. parce que keroog am na lu ñu fi déploré ne seen engagement gisuñ ko parce que gisuñ leen ñu wàcce ci terrain bi. gisuñu en tout cas ñu def ay action yu décisives léegi moi je crois que ñu ngi naan ay affaires yu xamalan pour arrêter ko euh, ne nous fatiguons pas on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras et je crois que ce qui va ajouter au désespoir li li nga xamante ni moo di gën a tax ndaw yi di gën a ñàkk yaakaar mooy sëñ Mambay ku nekk xam nga ne affaire gaal yi kat li ko gën a indi mooy ndóol ak ñàkkum xëy mm-hmm. waaye nag gouvernement boo xam ne bi mu toogee ba tey il faut ñu wax waa joxoñ baaram tuuba parce que démb noonu lañ doon campagne Ousmane Sonko moo def diagnostic bi ci nguuru Macky Sall ne boo gisee xale yi di jël gaal yi di génn réew mi sax parce que amuñu xëy mënuñu faj seen soxla dëkk bi dafa ndóol waa ñu toogee ba tey juróom benn weer la lañ def pour xeex ndóol mi lu dul ay wax te wax du feesal mbuus nag ñoom li Macky Sall ak Abdoulaye Wade doon dafa tey bu fekkante ne def nañ déclaration de politique générale foofu moo doon béréb boo xam ne nii tey ñii nañ xam fi ñu jëm. dinañ fa génn ay solution ñu xam fu ñu jëm Mambay ñii ba ñu toogee ba tey réew mi dafa gën a ndërmbeelu il faut il faut ñu waxoon te dee parce que réew moo xam ne tey investisseurs yi ñu ngi daw réew moo xam ne bis bu nekk nga yëkkati polémique boo xam ne bii dafay tax gan ñi fi waroon ñëw daw parce que xam nga gan lu ko gën a mën a dàq mooy coow lu bëri di ñëw ci kër lu bëri coow te réew mi nag dafa bëri coow. très bien léegi bu defee foog ñu andi daal ñu andi benn atmosphère de sérénité mais encore une fois nañ jox xale yi espoir parce que man damaa ragal faut pas qu'on se berce d'illusion que lii am ëllëg mooy gën a grave foofu foofu parce que cause bi la racine du mal mooy ñàkkum xëy mi xëy mi lu koy joxe mooy ay politique yu productive ñoom nag loolu defaguñ ci dara ba dara booloo ak jeex très bien foofu Fofana laata ñuy commenter lu ñu mel dañuy jàll ci l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire bi nga xam ne nee nañu euh, dañuy soobu dañuy wéyal seen grève bi door nañu ko àjjuma tey ji euh, grève la ñu euh, woote général non renouvelable maanaam kenn du ko daabaliwaat ndax jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel jafe-jafe yooyee sax dañ siy teewlu seen njiit di Omar Dramé gannaaw bu ñu euh, gisee ne état andiwul euh, ba léegi benn saafara pour euh, tontu suñu jafe-jafe yi nga xam ne teg nañ ko sur la table te ñu ko dund au niveau central comme déconcentré jafe-jafe yi nag au niveau central comme précisément à Diamniadio am nañu problème d'accès bi nga xam ne dafa lié ak transport problème de restauration problème d'internet ak problème climatisation au niveau donc déconcentré ñoom ñoo gën a nekkati si ay jafe-jafe yu taratar soo seen batiment yu ñu nekk dafa nekk en délabrement nga xam ne mun na daanu à tout moment am na ñoo xam ne seen bureau ñoom euh, la ñuy servir euh, dortoir ñeneen ñi même dañuy ériger si suufu garab yi si yenn localité yi ñu def ko seeni bureau euh, gannaaw loolu aussi donc lu ñuy wax équipement si seen wàllum liggéey mooy informatique ak ñoom seen loolu daanaka amu fa beneen ñuy yëglu moo di euh, exportateur de métal yi fii ci réewum euh, Sénégal mere nañu lool seen jëruñ jëwriñ di ministre du commerce ndax bu ñu sukkandikoo seen am njiit Mamar Soxna nee na moom ba mu dikkee ba léegi amul benn jàppal gu bawoo ci ministre bi ñëw ci ñoom loolee ci boppam ñu ngi koy ñaawlu te nee nañ état continuité la Serigne Mamar Soxna président des exportateurs euh, métal du Sénégal ay kàddoom ñu teewlu ko. état continuité li nga xam ne Abdou Karim foofu na mu ngi ko doon def ci secteur bi mu dindi ko mbaa mu yeesal ko mbaa mu mbaa mu continuer ko waaye dindiwul dajjiwul defarul lulut favoriser li nga xam ne mooy industriel yi nga xam ne moo nekk la maire Sandiara nga xam ne ginnaaw ba mu nekkee maire Sandiara industrie partenaires yu indi woon Sandiara ñu taxawal fa ay industrie nga xam ne lu ëpp ci secteur bi yaa ngi dégg ñooñu suñ concurrent la ñooñu rek lay déglu di leen defal ay avantages di leen dimbali ci seen jafe-jafe di leen taxawu seen jafe-jafe ñun depuis ba ñëwee ba léegi amul lenn loo xam ne ministre bi ñun en tant que les sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi nekk ay exportateurs sénégalais yoo xam ne avantage wu nañ ci li nga xam ne mooy exportation bi exportation bi dafa taxaw marché bi daanu ferraille bi daanu possibilité yi ñu waroon a mën a liggéey moo ñu si a taxaw taxawul muy jàmbat bu nga xam ne euh, Mamadou Fofana daf ñuy delluwaat ci wàllum mbëkk mi bu fekkee feer bi taxaw na exportation bi taxaw na nga dem port daanaka lépp tagatembe nga dem fi nga xam ne mooy pôle emploi bi nekk Colobane su ma juumul xale yi dem fa di bindu ña ngay rang di fa fanaan te ñoo fexe ba am bourse bu def seen formation nga gis benn ministre de la santé bu taxaw naan ku may recruter def day fekk nga bokk ci waa Pastef est loolu du décourager daw ah, de désespoir parce que tamit am na yoo xamante ne nii sawaay fi nga waree mën a amee yaakaar boo fa demee ba dégg fa yenn wax yeeg nga xamante ne nii mbirim discrimination la mbirim injustice la mbir moo xam te ne nii c'est aux antipodes tey jii nii ci la ñuy woote mu dine kat dañoo jàpp ne ne sénégalais yëpp a war a yem ci utum xëy ci war a liggéey ak ci leneen lu mu mënti doon mais xale bi bu déggee lool mais may nga ko bunt ko mu jëlee gaal def yoonam mais mënatul am yaakaar ci réewam bu fekkee ne ne moom nekkul Pastef moo tax duñ ko jël. Hmm. mënut am yaakaar ci réewam bu fekkee ne ne jàpp na ne président bi nee na nañuy yoole gaañi loolu moom mooy solution bi pour le moment. Hmm. mais xale boobu nan lay amee yaakaar toog ci fi nga xam ne moom mooy réewam d'autant plus que secteurs yi nga xam ne yépp xale bi xaj na munoon na ci am yaakaar sax foofu nekk peut-être tremplin am tey jii nii secteurs yépp nermeelu la port gi muy wax Sénégal li ci ëpp ci koom-koomam mais la koy jëlee. tey jii nii fan na port bi tool waxuñu la ne cent milliards presque ñàkk nañ ko. Ah. mbir ya daa daanu port daa taxaw. ah ñu ne déet na waaye direction des prévision ak étude économique. Ah. ñëw na ne lan secteur bii nga xam ne wax nga ko léegi gars ñi di kaas mu di secteur euh, primaire. dafa nërmeelu de vingt trois pour cent. Hmm. nga ñëw ci secteur tertiaire huit pour cent. nga ñëw ci secteur euh, bi nga xam te ne nii euh, moom moo jëm ci secondaire bi. dégg nga sawaay kon lépp a nërmelu ñu ne la wéy Sénégal kat jamono ji am nañ déficit budgétaire déficit budgétaire xam nga moom mooy lan la yaakaaroon ci loolu nañu waroon a am ak ci li nga xam ne loolu nañuy dépensé mm-hmm. dépense yi ëpp na la ñu war a am muy huit cent milliards yoo xam te ne nii budgétaire xam ne déficit budgétaire la mm-hmm. loolu moom mooy lan loolu moom mooy sénégalais bu yeboo ngeen waajal ndaxte bokk na tamit ci bor yi nga xamante ne ni ñu ngi koy rappelé bërki démb moom mooy huit mille et quelques milliards yi nga xam ne war nañ ko fay ci trois ans boo defee calcul bi daanaka day mel ni ne at mu ne war nañ fay trois mille milliards fan nañ koy jëlee. Mm. ci ni ñu la naan déficit budgétaire am na. ñu ngi la naan secteur yëpp nër nërmeelu loolu donc. tey jii nii loolu mënul tax nit ki am yaakaar ci li nga xamante ne nii kat jàpp na ne réewam bii kat mun na fi toog et tekk fi c'est bien possible donc loolu la mu wëndu moom mooy il faudrait que gaañe ci seen bopp jéem a góorgóorlu parce que fii ñuy teg seen tànk nii nekkul yoon bi nga xamante ne nii moom mooy lu gën